dans un premier temps euh, rapport bi évoqué euh, la nga xamante ne le président Déthié Fall dóor na ci baaraam. muy lan muy le stress social bi nga xamante ne sénégalais yi ñoo ngi koy dund. soxna Aïcha su ma fii tey nous sommes dix huit millions de sénégalais te si dix huit millions de sénégalais yooyu trente pour cent de la population ñu ngi si en situation de pauvreté en situation de pauvreté extrême six millions. de Sénégalais tey ils n'arrivent pas à avoir le minimum cest dire mille francs par jour tey su ngeen xoolee système euh, éducatif dafa sooxe nekk à genoux de sorte que tey l'école publique n'enseigne plus l'école publique ne fait plus rien nekk l'école publique ne donne plus aujourd'hui euh, à son acteur principal bi nga xamante ne mooy l'enseignant un lendemain meilleur soo xoolee tey bu weesoo sax euh, wàllu école publique da ngay xool li nga xamante ne mooy structure de santé yi tey structure de santé yi il faut vraiment avoir les moyens pour nga mën a am la nga xamante ne moom la ñuy wax euh, une santé vraiment normale digne de son la nga xamante ne moo jëm tey ci wàllu habitat un logement décent sénégalais yu bëri ñu koy xaar. te doole souhaiterez que loolu noonu yëpp ñu boole ko ci rapport bi. le stress social. je crois que tey booy booy dresser un rapport. mais ku nekk je veux dire ku nekk xam nga y a des priorités gis nga priorité boo ko tëbee nga ñëw di ma présenter leneen man duma ko mën a gis la nga xamante mooy priorité dëgg dëgg dëgg tey aujourd'hui c'est le stress social dont fii la population sénégalaise. donc ñu war leen may loxo ñu jóge ci suuf jëm ci. kaw taxaw ndax dara du mën a taxaw